kon nag mbokk yi Ceerno Boubacar Diallo nee na gannaaw bi mu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ngi leen di wax ni asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dendaangal séeréem wonɓe ɗo e wuro nee na mbooleem sëriñ si nekk ci dëkk bi arɓe ɗo saal bi ñi fi ñëw nee na bu nekkul woon ni mbooloo mi dañ ko tere nee na sëriñ si duñ fi mairie bi duñ ci duñ ci xaj nee na kon nag li ñuy wax rek mooy ñu ngi wax ci turu ñii nga xamante ne ñoo fi ñëw nee na ak turu président sëriñu daara bi fi ne muy Haaruna Ba nee na ak vice président Thierno Oumar Kardiata Diallo ak mboolem sëriñ sépp nag alay sago no garen ɗo yettude allah e yettude nee na nag il faut ñu ñëw fii tey ñëw nag pour sant si sunu mbokk sant si nag sunu meer muy monsieur le maire Talla Sylla muy président monsieur le maire Talla Sylla won teddugal ngal o na monsieur le maire Talla Sylla am na teraanga bu mu defal nee na nit bu la defalee teraanga te yow teraanga bi mu la defal du dara loo ko defal lu tax mu defal la teraanga te moom moo la lebal teraanga jooju nee na lépp loo mën a tele tële nee na war ngaa mën nag ñëw ba ci moom ne ko nag jërëjëf monsieur le maire nee na ñun de wóor nañu ni monsieur le maire nit ku tedd la nee na kenn du teral kenn nag ku dul ku tedd ku tedd rek mooy teral ku tedd nee na nit maanaam ci teral ñu tedd ñi nee na ci ngay ci teral nit ñi ci ngay dajeeg nit ku tedd nga teral ko yow itam nga jaar fa tedd ba faw nee na sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ni nee na yàlla dafa ni walaqad karram naa bani aadam nee na yàlla dafa ni doomu aadama yépp man yàlla maa leen teral ak fu nu mën a nekk nee na xoolul jullit bi xoolul yéeféer bi doomu aadama rek la yàlla wax nee na kon nag nit koo mën a gis rek nee na teral ko monsieur le maire nag nee na ku tedd la nee na monsieur le maire defal nañu teraanga nee na ba ba ñuy jóge ci àdduna ne duñ ko fàtte mukk nee na sunu mbokk xaal pulaar yi dañuy wax ni nee na ñaar kenn mënu leen a fàtte nee na ki xoj ba nga waccu ak ki jox nga lekk ba suur nee na ñaar ñii ba àdduna faw ba àdduna tukki doo leen fàtte mukk nee na nun itam monsieur le maire Talla Sylla teraanga bii nga nu defal nee duñ ko fàtte mukk nag nee na nag te dëkk bi yépp ñoo war maase ñëw sant la gërëm la monsieur le maire ci sa taxawaay nee na sunu taalibe yi nu am nee na ñu joxe ndigal ni na taalibe yépp toog nee na monsieur le maire bu dul woon li ngay def nee na taalibe mënu leen a toog loo nu génn di taxawaalu te kenn du ci mën dara nee bu boobaa bu ñu génnee mën nañoo taxawaalu te bu ñu taxawaaloo feebar bii ñuy daw ne mën na leen dal nee na kër gu ne dugg fa nee bu boobaa dëkk bi yépp mën nañoo am jàngoro nee kon bu dëkk bi mënee mucc ci jàngoro bi nee yàlla dogalu ko waaye monsieur le maire nag sa loxo mu ngi ci biir nee monsieur le maire ñu ngi lay seedeel ni sa taxawaay ak sa jëf ñu ngi koy rafetlu nee ñu ngi sant yàlla ñu ngi lay sant nee na ñu ngi lay ñaanal monsieur le maire li nga bëgg ci sa mission nee na sa mission bii fi nga ko bëgg a àggale ne ne yàlla na la yàlla kàttanal jàppale la ba nga àggale sa mission fi nga ko bëgg a àggale nee na yow nag ak képp koo xamante ne mu ngi la ne monsieur le maire boo jógoon taxaw bëgg a def li nga bëgg a def te amoo kenn ku taxaw sa wet di la jàppale ne même boo diisoog ñoom bu boobaa ne du ñu ànd ak yow ci li nga bëgg a def nee na kon ñaari loxo ñooy ànd raxasoo raxasu des maanaam ñu set ne monsieur le maire Thierno Boubacar nee na balaa wax gee gudd dañoo ñëw rek pour fësal sunu mbégte feeñal sunu kontaante ak yow waaye ñaanal la nag monsieur le maire nga yàgg fi lool te wér ne monsieur le maire lii nga xamante ne yaa ngi ko ciy fere bi nga commencé ak léegi ëpp na ñeent fukki fan bis bu ne nga toggal daara yëpp li nga ci fere ñu ngi lay ñaanal monsieur le maire yàlla boo ko rëccu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni benn bu baax boo ko defee danañ la fulal fay la ko fukk ne musala mer ben bo def yalla na la ko yàlla fulal fay la ko ay junni junni junni jox la ko ba nga contane musala mer ne musala mer yalla na la yàlla fay ngeen gi pay ne ta aduna bi yep nak yëg nañu li nga def musala mer musala mer contane nañu bég nañu jere jef suñu borom way jere jef musala mer bu le nit defaree dara nga ñu ko jere jef bu la ñu defalee dara nga ne ko jërëjëf loolu dafa bokk ci acte boo xam ne islam da koy saluer donc kon daara du ñu wax sax xëy na daara cosaan daara rek daara la daara moom ala kulli xaal daara rek lay doon kon daara yëpp kontaan nañu ndax du du du daara cosaan parce que daara la protéger daara la protéger te protéger daara mooy protéger islam donc kon islam la protéger. te protéger islaam sax du protéger islaam en tant que musulman dafa def devoiram ndax alquran daf ñu jàngal ne bu ñu demee ci ay nit dafa am ñu ñuy sensibiliser ñii dem taxawu fii ñii dem pour taxawu fii ñii dem pour taxawu fii mais kenn nit mënul dafa ndoor lépp léegi nag ki lay xamal ne maag yow ñoo bokk liggéey bi ci daara ji mooy ki nga xam ne du d'accord sa bët xonq ak lu mu mën a occupé ci aduna waye dina la won ne bi nga nek gëno ma ci yee ndax jang nañ ci histoire ne sallallahu alayhi wasallam ba ak ñetti ña ki ne may taxani ki ne man may nu mu tuddu lor gatt bi ha ah, ki ne may wajj ki ne may def nangam parce que lu ñu mën wax rek gis nga ki la jox nga xewlu moy sa sang donc lolu nak wax deug yalla les mooy tànk yi mooy sabab bi waaye dañu dañu wane ne sunu bopp la dégg nga maanaam du lu extraordinaire man loolu laa gëm parce que faaxidu shay laa yoxte ndax dañu ne nit mënul joxe lu mu amul donc nit bu ñëwee di la wane ne ci li nga nekk gënoo ma ko bëgg gënoo maa nekk ndongo daara ak ak kasket bi mu mën a jël da ngay xam ne rek yéen a bokk daara ji te lu mu mën a doon ci àdduna mën na doon daara xanaa àdduna rek moo ñu xaw a kii lu mu mën a doon mën nga koo def daara ndax ñu ñëpp jànge nañ ci gouverneur yi fa yi jàll yëpp gouverneur islam yi nga xam ne tabarkalla yooyu yëpp mën na ñëwaat mën na indiwaat parce que ay nit rek ñoo ci nekkoon moo xam nga arab dañuy wax naan hum rijaalun wa nahnu rijaal loolu mooy lay wax ci bëgg jël responsabilité ñu lay wax gouvernement Omar ibn Abdel Aziz wala gouvernement keneen wala gouvernement keneen mais yow li nga mën a am rek mooy xam nga ne duñu ay malaayik ay nit lañu ay nit ñu bëgg lu baax leenu ay nit ñuy liggéeyal pour am yiwu yàlla la parce que loolu rek nga mën a am loolu nag mooy tax nga mën a jël sa responsabilité ne hum rijaalun wa nahnu rijaal ay nit ay góor yàlla lañ mais ñu ñun itam ay góor yàlla lañ te dund bi wax dëgg yàlla lu ko fi jar amul guddul yàggul mettiwul responsabilité bu nit mën a jël danga cee wutu nit rek mais njëkkee woo ko ah doo ko mujjee aussi donc kon nag wax dëgg yàlla ñun en tant que bàyyi daar yi ne ne naa wax ci seenu tur ñoo ngi sant bu baax monsieur le maire ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm particulièrement ñoo ngi gërëm suñu tonton Gajaga ak équipe bi mu àndal vraiment xam nga euh, li ñu tuddee action maanaam nit di la defal benn affaire euh, defin bi mu koy defee da koy accepter ak lu mu la mën a jox parce que da ngay d'accord ci lim lay jox parce que defin moo ëpp doole def xam nga ki ñëw bëgg laa def ak daara ni mu bëri ay sew-sew ku bëgg ku ñëw bëgg laa dimbale ba pare bëgg laa lu ñit vraiment dimbalewul la mais koo xam ne dafa ñëw ci action bi di la wan na le maa la gën a nekk ndongo daara suufeel boppam donc kooku lu mu la indil rek desa nangu nga moom la ñuy wax ne gor soo ko joxoñee nag bii sa nag la joxoñ bi bu ko suurul boo rendee nag bi du suur donc kon acte bi acte noble la yàlla xam na ko man amul benn jour ñi ñëwuñu mën nañ ma seet ñëwuñu ci daara ji te wàccuma fekk leen seet leen ak ñeewante bi ñu am bàyyi seen yitte yépp pourtant du farata si ñoom xam nga ñun sëriñu daara ngeen baal ñu ay bàyyi ngeen mais dañu xaw a eh, dal xel tuuti nit da lay dimbale ba nga defee ne li may li may def farata la bu toogoon këram amul ci benn bàkkaar ah amul ci benn bàkkaar donc loolu nag bu ko nit di ñëwee ci yow di ko def di sonn ci yow gis nga li mu li muy sonn ci yow da ngay fexe moom itam nga am foo ko fii féete ndax li ma wette wóor mooy suñu toog gisuñu dara mais xam naa ne bëgguñu lu tolloog tarfatal ay ni ñu wax ko ci daara bëgguñu ko ñoom donc loolu comme ñoom yoruñu ay ay ndongo yu ñu tiim ñun ñoo leen mën a jàppale ci lool mooy bu ñu demee li ñuy li ñu wax ñu sàmmwante kook suñu waa daara ñu sàmmuwante ak loolu ba ëllëg kenn du leen wax loo xam ne dinañ ci dellu parce que man xam naa ne ku addu lu jëmmale ci daara dina leen metti donc kon loolu ah moom la ñuy dénk suñu bàyyi ngeen baal ñu nag suñu tonton yi en tant que ñu daara beneen bi mooy dañuy jàngal ne ci li ilaafi Xurays xam nga dañ ne ataamu min joo wa amanu min xawf ataamu min joo moom mooy mburu wa amanu min xawf mooy sécurité mais sarte bi mooy rabaatal bayt kon alquran ji nañ ci nekk rek nañ ko bañ du mbugo nanu jàng nanu yar lu mu métti métti yàlla dina ñëw ak bop bop nanu jàng nanu yar parce que rabb hada al bayt moy sarta bi gis nga rabb hada al bayt bu soté at'amu min da fay am wa amanu min xoofi te moy mbur ak sécurité mais nak wax deug yàlla rabb hada al bayt bi buñ ko assuré wul ah li pousé mère du pousé diko pousé de parce que liko animé du ben sëriñu daara wala liko animé ba mu def limu def du sëriñu daara mom xamna ne yàlla la li tax yàlla poussé ko ñun xamuñu ko léegi li ñu jàpp ne moom la mooy sax gi ñu sax ci rabaatal bayti gi donc kon luñ ci sax doyul nañu koy moytu mbuboo mën nañ cee profité parce que wax dëgg yàlla man sëriñ donte la jarbaat laa doom laa mais daara laa yor maa yor daara maam Cheikh Tidiane si almaktoum bii ci marché bi mais sa yaram day daw ci taalibe yi da ngay nekk ci marché bi ba 13 man sañ naa ko wax parce que maa ngi yor taalibe te wóor na ma ne ci taal ay taalibe leen man am na ñoo xam ne xam naa sax fi ñuy dugg mais jamono laajewul noonu waxuñu la doo génn mais même bu dee farata xam nga yow ki nga bëgg a jàngal mu nekk ci marché ba 13h loolu c'est impossible lan ba nag lay jàng léegi nag bu ñu waxee ko nan lañ koy tuddee bu ñu koy wax daara lañuy wax mais effectivement daara la ah non non ah waaw <laughs> donc foofu rek. parce que ay taalibe laa yor dañuy yalwaan yàlla xam na ne dañ am na ci ñuy yalwaan donte la internal mais am na ñu yalwaan mais dama bëgg wax ne temps bi jeex na merci beaucoup mais dama bëgg wax ne nanu wattandiku lool loolu pour ñu protéger ko heure ak heure bi ñu am yëpp nañ koy considérer ci li nga xam ne moom moo nu war donc bu fekkee nag wax ji ngeen baal mi gudd na am na ñu mu gaañ maa ngi koy tuub dama koy wax en tant que jàngalekat maa ngi koy tuub wallahi wal quran al azim tuub lu ma ci loolu maa ngi koy tuub maa ngi sukk ngeen jéggal ma bu fekkee itam kàddu gi yaatu na maa ngi koy tuub kon monsieur le maire ñu ngi lay baalu àq di leen jaajëfal merci beaucoup. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy nuyu mboole mi di leen ziyaara di leen baalu àq di ziyaara daara daaray cosaan mooy daaray cosaan yu nga xam ne ñoo teew fi tey sargal Talla Sylla di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal lu njëkk lu njëkk ñaan bi muy alquranul karim muy waxu yàlla bi wàccal nañ ko kaamil alquran wàcc ko fii ci bërëb bi béréb bu nga xam ne moo yore dëkk bi kon nag am nañ si yaakaar نغيال من إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سمع القرآن بفن كي جنگ فن كي واتش ولا فن بق بمنك من ما كي وط كونك أمنا نياكار بربيتي إن شاء الله تعالى يلا دنك وط لوجينا لوجينا تاو دال سون تاو في ما يداري تشسان نيو سانتا آه، مير بكبي ku nga xam ne defal na lu nga xam ne musul am fii si dëkk bi musul am sax fii si réew mi loolu sant yàlla di ko sant ndax condition yi mu joxe woon pour borom daar yi bañ génn seen taalibe yi bañ a génn def nañ ko benn taalibe doo ko gis fi tey si mbedd bi mu yore pot déedéet amul condition yi ngeen waxul yépp def nañ ko yow tam lu ñu moom tam Talla la lu mu wax woon dañ ko defal borom daar yi def na ko ndax borom daar yi nga xam ne mooy daara yu cosaan kenn ku nekk oto dana ñëw ba buntu kiram wàccel ko ñam ñam bu baax taalib yi xéewlu si suñu desalee subaanu ñu xéewlaa si du ñu yelwaani kon nag amul lu ñu def di ko ñaanal yàlla rek ma am pe yàlla na ko yàlla fi yàlla na ko yàlla jàppale nga xam ne nag borom daar yi cosaan ñi nga xam ne ñoo teew toog fii ñu jàkkaarloo ak yow fii lañ nekk si dëkk bi bay seen dëkk ñëw fii fii la am ñoo xam ne am nañu fii kër fii la ñuy wotee fii la ñuy wotee seen kar nekk yor na kartam fii yépp li fii lañ koy defee am na ñu nga xam ne am nañu fii kër dëkk am ñu nga xam ne amuñu fi kër waaye ñu ngi lay ñaan ñi nga xam ne amuñu fi kër ñu mun leen mën a am si terre yi nga xam ñoo nekk si waru dëkk bi ku nekk am teeram mun ñoom ñëpp ñu bokk si dëkk bi su wote ñëwee ñoom ñëpp ñu mën a wote ñun amul ku dul yow maire ndax loo ñu defal li mus mënuñu musuñu ko am musuñu ko am ñoom ñoom lay ñoom lay ñaana lu baax gis na gis nañ su taxaw ndax si waañ bi nga nekk télévision boo ubbi fii si réew mi wala fii si dëkk bi dangay gis mu yor tuddi cunuwaar taxaw ànd ak jigéen yi ak góor yi kon kooku wàcce boppam la Sëriñ tuubaal lu mu doon dégle lépp moom def na ko mu ngi liggéey alxuraan wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam insha allahu taala fii su dese fii si dëkk bi ñun ñëpp boo daara cosaan moom dañuy baax le seen mbir yëpp day baax kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nag yàlla bay fii yàlla yàggal ko fii si meer bi bi mu màggat baa mu jox ko keneen ñu ngi koy ñaanal di ñaanal président bu nga xam ne moo yoru daara cosaan mooy Harouna Ba lépp moo war moo ko war moo moo dajale ku nekk mu woola mbaa mu dem ba sa kër mu ne dañu am benn bis toog si maire ah, ñaanal ko wàccel ko xaami kaamil lu eh, ñu ñu jàkkaarloo ak moom ñu wax suñu soxla moom tam mu ñu gën a kontaan si moom kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nag yàlla nangu bi jaay rasulullah sallam di nuyu mboolem bu ñëpp borom xam-xam lañu ku nekk mën a toog fii wax lu may wax lii ñëpp borom xam la ñu nga xam ne dañu jeexal fuuta ba jeex ñu toog fii am ñoo xam am ñoo xam ne saalum lañu jeexale am ñoo xam ne dañu jàng ba jeexal bawol ñëw daje fii si dëkk bi ñoom ñëpp dañu jàngale daara alxuraan kon nag ñu ngi ñaan yàlla meer nga jàppale leen nga jàppale leen te si daara yaa ngi leen di jàppale waaye dañuy ñaan mu gën a yokku waaw taalibe yi daañu añ daañu reer waaye ndëkk bi tam mooy seen problème ñoom toujours dañ koy jàmbat ko ko wax ko ko waxul daa nga jàmbat ndëkk bi ndax daar nga yore daar lu met fanweeri xale mbaa ñeent fukki xale nga bëgg a yeewu de ku nekk nga jox ko ndëkkam loolu day xaw a mit waaye suñu amee solo yàlla maye sa loxo gën a gudd nga dimbal leen si loolu kon ñu ngi lay ñaanal bu baax di nuy borom xam-xam yépp di wax daal ñeen ñépp ku dem daaram na ñaanal maire bi yàlla nag yàlla yàggal yàlla yàlla may ko wér gi yaram ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi si maire bi ñi day jàppale waaye moom insha allahu taala tànk bi mu jàpp nii taxaw di dimbalee jaar daar yi insha allahu taala si kanam jëm